sëñ Maam Mor Mbacke moom Cheikh nga xam ne mooy jëfal joxe yi ak Cheikh Mahmoudou xam ne ni moo fi teewal Cheikh Mor Moustapha te jiite liggéeyu magal kaddu yi daanaka xawoon na cee mën ñàkk waaye nag ndigal mi ñu jógee xaw di leen nuyu ci turu sëriñ Hamsatu moom sëriñ Soxna moom mi nga xamee ne liggéey bi moo ko euh, yoon la baaxoo doon ci nekk day am jiit lu di sant yi mboolem jànkati xasida yi nga xamee ne ànd nañ ak ñun liggéey bi liggéey Sëriñ Tuubaa di ci jiital sëriñ Aliou Diop moom mi nga xamee ne ku ràññi ko la ci wàll yi ak sëriñ Abdou Karim Ndiaye ak sëriñ Jëri Aw ak mbooleem kuréelu xasida yi nga xamee ne ñoo nekk Touba te sëriñ Sëriñ Mokhtar ku deewal leen ma waaye bu naafe ci njiital sëriñ Cheikh Dia ak daara yi Mafatihul Bichri ñoom ñi nga xamee ne ñoo doon jàng day ñu yéetal sëriñ Xarim Diop nga xam ne kenn laaj mbooloo mi ñoom yi kaddu yi sant rek lay doon ak mbégte di ko xamal yow seex Modou Bassir fi ne mbooleem jàng dafa ne yëpp am nañ ci bi ndigal bi bàyyi ko sëriñ bi jaar ci yow dëkk ci ñoom ndax kenn ku nekk day lii sa bëgg-bëgg tey sa yitte mooy liggéeyal sëriñ bi kon nag buñ la joxee waar ci màggal gii damu jëm ci li sëriñ bi gënoon a yittewoo muy xasida yi nga xam ne sëriñ bi ñaari tànk la amoon benn bi mooy alquran benn bi xasida kon bu fekkee ne yàlla dañoo taw feexal ba ndigal bi bu rafet ci ñun kon dañ ci sant bu baax a baax jéem suñu kem kattan di ñaanit euh, yàlla ci daraja sëriñ bi liggéey bi nga xamee ne sëriñ bi dañ ko léegi sëriñ Maam Mor ak yàlla defal leen ci ndimbal ak kattan bu ngeen mën koo yeggale euh, bu mu gën a matee bu gën paarale lépp dëppoo ñu ngi sant bu baax daal tey kaddu yi moom xawoon na ci mën a ñàkk waaye kaddu yi moom du mën a ñàkk yàlla ñu ko yàlla tekkale ak yu bëree bëri te saa su nekk ñu koy defee ñi nga xamee ne ñu la suñu bi ñu ko sant tey gërëm sant yi ak tey ndongo ca taxawaay ndax ci barab bi ñu ko amee ak noppalu akum noppalaay taxawaayam la ak ñu ko àndal ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah ku jóg di màggal li yàlla màggal des na la màggal danañ la jiital